baax soxna si. Euh, Burkina ñoo ko seetaanandoo euh, fan yi yëpp xam naa yi en tant que spécialiste euh, nga koy topp avec beaucoup d' tey jii ak dernières information dernière information yi ci am lan nga ci jàpp waxtu wi ndax tegu war nañoo mën a jàpp ni mi ngi teguwaat ci yoon wala ba tey jii xel dalagu ci. Euh, jërëjëf dama leen bëggoon a gërëm bu baax euh, sant leen ci liggéey bi ngeen di def fii ci télévision bi sant itam ak nuyu askanu Sénégal ak waa CEDEAO yëpp ñi nga xamante ni fan yi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi xel ci li xew Burkina Faso mu doon loo xamante ni dafa soxal askan gi yëpp. Euh, dëgg la président exécutif CEDEAO jóge na Burkina defe naa démb ci guddi wane itam ne bi ñu commencé négociation yi booba léegi génn na ci seen waxtaan. ñu delluwaat nguur gi ki nga xamante ne mooy Kafando maanaam comité bi gi euh, bu ñu taxawaloon bi ñu dàqee Blaise Compaoré itam ñu ne d'accord nañu bokk na ci proposition yi ñu fexe ba ñi defoon ñaaw teew bi ci fan yi euh, général Diendéré ñu amnistie ko maanaam ñu baal ko lépp loo xamante ni jot na ko def ci fan yooyu kenn te kenn du ko toppee dara euh, joxante itam rendez-vous ci suba CEDEAO alors li génne nag ci suñu xalaat mouvement sociaux yi yi nekk Burkina Faso yi nekk fii Sénégal ak mun naa sax ci biir Afrique bi ci Cameroun mooy que ni kafando ak ñi mu àndal yow benn bés jàpp président boo xamante ni askan nga yëpp ñoo àndoon génn ki fa nekk teg ko fa moom kafando boobu ak ñi ko wër yëpp. dañ leen war a teg tuuma jënjëriñ euh, leen war a def euh, tuuma boo xamante ni bu ëllëgee kenn du gis lu mel noonu di ko defaat ci beneen réew ci biir Afrique ndax bu dee dañoo bëgg a def euh, impunité dañoo bëgg a def de sorte que xale yi ñëw suba ëllëg fekk Afrique boo xamante ni bu fi nit jàppatee décision ci askan wi ci peuple bi bu ko nit buggee bundu xataal boobu décision dafa war a sentir ne am na ñi fi nekk di tere lu mel noonu. te amnistie moom mënoo ci d'accord. waaw du du man rek sax mais ñun ñu ñu waxtaanal ci biir Burkina Faso. ñi fa nekk ci mouvement sociaux. fii ci Sénégal am na fi benn collectif bi ñu fi taxawaloon fan yi doon liggéey ci mbir mi bi envoyé woon sax euh, message président CEDEAO sànq def nañu point de presse. li fa génn mooy que ni ñooñu dañ leen war a topp buñ leen amnistier nañ leen teg loo xamante ni bu ëllëgee kenn dootul am xalaat. di mel di def lu nu mel. est-ce que loolu yëpp du euh, wane monsieur Diouf ni xëy na CEDEAO tey jii amul yenn pouvoir yi li mu mën mooy euh, négocier parce que Kafando ku ko euh, général Diendéré ku ko ni dama lay topp tey jii doonul woon teggi loxo kafandoo ci nu yombee noonu xëy na ñoom dañuy xool ni comme on dit le moindrement rek la ñu doxal foofu. waaw loolu sax am na ñun nee nañu négociation boo ko dee def dina am loo bàyyi ak loo téye ci sa loxo wante nag gis nga li ñu def barki démb semaine ba li passé dëgg-dëgg soxna si pour ñun loolu warul doon loo xamante ni dañ koy encouragé ndax xëy na bu bàyyee mbir mi noonu itam bu ëllëgee fii ci Côte d'Ivoire fii ci Guinée Conakry fii ci gine Guinée Bissau pourquoi pas sax fii ci Sénégal nit mën na fi yow rek benn bés ne li ngeen def ànduma ci danaa ñëw dindi li ngeen defoon te xam naa ne buñ tolloo ci jamono itam daañ ma amnistie dara duma ci fekk ñi yore fetel ñun ñoo leen jox ay fetel ci sunuy budget ci sunuy xaalis joxoon leen ay fetel pour que ñu aar sunu réew aar sunu kaaraange mais nag bu réew tolloo ci diggante ngeen jël yooyu fetel bu ko jubalee directement ci nga xamante ne ñoo leen ko jox defe naa ne loolu waruñ ko encourager. mais est-ce y a une autre solution amoon na beneen saafara tey jii euh, xëy na pour euh, calme bi amaat euh, foofee ca Burkina ñu am ko au moins. est-ce que amoon na beneen saafara beneen yoon bokk na ci solution déjà ñu d'accord ne nañ delloo nguur gi ñi ko yore woon ni ñu leen ko ni ñu ko dénkoon noonu leen ko delloo defe naa président si bi nga xamante ne moo nekkoon président transition bi wane woon na ni ñi def lii bu nu taxawul baalu àq delloo nga yi nañ jàpp ne ay rebelle ay terroriste lañu ñëw bundu xatal askan wi ak réew Burkina Faso bu boobaa nañ leen jàpp comme tel te juger leen comme tel amoon nay nañ solution mooy que nii ñi def loolu ñu d'abord ñu téye leen denk leen foo xamante ni fenn ñii ñëw bu pare mën leen a mais loolu day laaj xëy na jëfandikoo waat ci euh, ngànnaay euh, pour par exemple pas forcément pas forcément parce que général Diène da doon woon seetaan tamit ñu ñëw xëy na jël nguur gi dellowaat ko Kafando. waaw euh, jëlaat ko pamti pamte yóbbu jàppee ko terroriste wala rebelle. xam nga général Diène ñi mu àndal ëpp nu cent 150 personne mais dañoo jàpp rek ni xëy na liñ def buñ ko defee ba pare ñu négocier am itam ci négociation. boobu mais jàpp nañ ni garde bi xëy na garde présidentielle bi foofu nekk ci lim bu takku ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaawam tam. du sax ñëpp soxna si man mun naa waat ni du ñëpp ñu ànd ak ñoom ci loolu. mais nag bu lu mel amee ñëpp jóg xëy na ñenn ñi jóg ànd ak moom jël ay fetel mhm. jubal ci président bi am nañu doon bañ deret turu ci anam yoo xamante ni rafetul wala baaxul ñooñ dañ ne woon ah ndegam lii lay def nañ ko bàyyi ba xool lan lay def moom nee na bi muy def mbir mi nekkut woon pour coup d'état def ko defoon xëy na pour am lu muy ñaxtu mu xam ne nag li mu def ëpp na ci la taxaw ne léegi jël naa nguur yi def naa coup d'état parce que xam na ne xëy na bu defatu woon loolu du am bànqaas bu mu mun a négocier tey nag moom ci boppam wóor na ko ne li mu def ëpp na te ñun itam xam nañ ne ki ko ci dugal bokk na ci Blaise Compaoré bi nekk fële biir Côte d'Ivoire moo tax ñu ne. même su ko weddee. mënu ko sax weddee ndax moom bu ñu ko laajee ci benn rajo nee na waaw waxtaan naa ak moom mais bi may def mbir mi waxumoo woon ak moom euh, ca njëlbeen. yooyu yëpp def naa ay waxu kasaw kasaw la yoo xamante ni dafay wane lii mu def dafa am ñu ko ci jàppale ñooñu nag ak moom dañ leen war a juger fexe bi peuple burkinabé bi laajte ñu juger leen ñu may ko giir goo xamante ni daal lay mën a juger teg leen wala teg leen daan gi ci war. léegi lan mooy doon ëllëg bi tey jii euh, de toute façon euh, fas nañ ko yéenee jéggal joxaat nguur gi euh, kafando war a jëm ci ay élections yaakaar nga ni mbir mi dana delluwaat ca na woon fa woon foofu. man as tuut li ma xam ci askanu Burkina Faso gis nga Afrique ak Burkina ñu yel indépendance 1960 Burkina mu ngi njëkk a jëf soulèvement populaire 1963 66 six ans après indépendance. te ñu jur ñooñu ak maamu ñooñu ñoo fi bàyyi askan goo xamante ni ku ci bëgg a bundu xataal askanu Burkina Faso wala nga bëgg a def lu dul noonu xale yi ñu fa bàyyi ak doom yi fa nekk góor ña jigéen ña daañu jóg jàmbarloog yow donc wóor na ma ni tey fi Burkina Faso toll buñ leen jàppalee as tuut daañu régler seeni problème ni mu waree régler problème mu jënjëre ak ñi mu àndal ba saa réglé problème mu Burkina Faso gis nga keroog bi ñu def mbir moom. ci lañu waroon a génnee dossier Thomas Sankara. jugement Thomas Sankara expertise bi bi ci amoon scientifiquement dañ ko waroon keroog génne le di mais ci wàllu woowu est-ce gën a dina ko leeral wala moom xam na ne ci dossier Burkina Faso Blaise Compaoré euh, Thomas Sankara moom ak Blaise Compaoré seen tur def cee génn du benn du ñaar fukki yoon moom jënjëre xam na mbir moom. xëy na loolu itam mbokk da ci taxoon moom yaakaar ni. bu ma defee lii. li nga xamante ni mooy dossier bi nga xamante ni commencé na di tudd sama tur. daa am dina am porte bunt boo xamante ni. dina jaar ba génn daa ci mun a génn. yooyu yëpp moo tax na xale yi société civile ba mouvement sociaux yi jigéen ñeeg ndaw ji ne kii duñ ko bàyyi mu demee nii. ndegam nag euh, CEDEAO nee na suba dañu daje euh, Nigéria Abuja ñun bi ñu paree léegi sunu réunion ak point de presse bi ñu doon def ak euh, bureau m mm. dafa am ñetti affaires yu ñu taxawal benn bi mooy que ni. suba Abuja bu CEDEAO di réunir dañ fa am ñun benn rassemblement africain africain boo xamante ni société civile yëpp dañ fay yónnee ay ndaw daje foofu xamal leen ni nangeen fexe ba li treize points yi bokk ci protocole bi. Mhm. bi ngeen di waree a négocier ngeen dakkal ba faw le fait de mun a amnistier totalement Diendéré. Mhm. deuxième mesure bi mooy que ni suba ñun fii ci Sénégal fii Ndakaaru comité boobu nga xamante ni euh, m mu ngi ci. Euh, Y'en a mu ngi ci forum social mu ngi ci kuréelu jigéen ñi nekk ci wàllu àq yelleef ñu ngi ci ak yeneen ak yeneen ni mouvement mm-hmm. daañu def benn rassemblement daje itam xamal waa euh, CEDEAO yi nekk réunion ni fii ci Ndakaaru li ngeen di bëgg a régler mm-hmm. lii moo ci seen yu taxawaay ci même moment bi itam fale ci Burkina Faso ñi fa nekk bale citoyen ak yeneen mouvement yi ak syndicat yi mm-hmm. daañu def la même chose ci sànq rek bi ñu paree suñu ñoo bi. ji jàpp nañ ñetti mbir yooyu léegi nag CEDEAO moo war a xam ne waruñu encourager groupe yoo xam ne dañu lañ jax ay ngannaay ñu def li ñu mel gis nga Côte d'Ivoire ci weer wala ñaari weer lay def ko euh, élection. Guinée Conakry même chose. Mm-hmm. Guinée Bissau barke démb Ndiaye nga fi dégg li fa xew ci ay jafe-jafe ba ñu woo leen fii bokk na ci waxtaan bi euh, xewoon ci sommet des chefs d'État yooyu yëpp dafay doon loo xamante ni boo ko réglé ni nga ko war a réglé mu doon réglé boo xamante ni kenn dootul am xalaat def lu mel. mën na am yeneen i nit xalaat ne. mën naa def doxalee noonu ci yeneen réew. Euh, juste euh, monsieur Diouf laaj bu mujj bi foofu laa koy laaj tey ji xëy na Kafando joxaat nañu ko nguur gi ak premier ministre mais est-ce que euh, dans ces conditions danañ mën a jiite ak xel mu dal parce que li xew nii buñ ko dundee ñu daal di am ne amnistie jëndere loolu tam mën nañoo jàpp ni xëy na du dalal xel ndaxte bu dul jëndere sax ëllëg ni ko waxee mën na doon keneen est-ce que dinañ mën a diriger comme ça ànd ak daal esprit bu dal. waaw xam nga pour esprit dal boobu il faut président bi bu delloo ci fauteuil yam mhm. delloo ci nguur gi ci ni ko askan gi joxe mu xam ne ku mel ni Dieng ak keneen ku mel ni moom dootul am mukk yeewu am xalaat ni mën naa dugaat ci réunion ministérielle bi ci réunion conseil des ministres fekk fa chef d'état am nu may yaay ji defanteeg mhm. moom. moo tax mun naa am li nga wax buñ ci jëlee mesures yi ci war. Mhm. Euh, kafando bu toogaate ak équipe am mën na am itam xel mi du ni mu waree. pour ñun loolu lu mel lu moo tax ñu ne nañ dem nag bi ci li nga xamante ni moo gën a conséquent ci mesure ci euh, loolu nga xamante ni moom moo di amnistie bi ñu accordé ay jëndeere ak ñi mu àndaloon am na ñu ci joxe kon seen xalaat dañ ci ànd ak Adiatala ci RAS. saafara saafara bi CEDEAO am ci crise Burkina Faso bi indi na xaajaloo ci askan wi diiru ñetti fan ci ay waxtaan mënuñu ne saafara am na donte am na ay proposition yu ñu defagum. ñi bokk ci CDP di parti bu Blaise Compaoré jiite woon daf ko daal di rafetlu li ko waral rek mooy seeni mbébét yëpp la saafara bokk na ci bokk ci élection yi takk der yi amal coup d'état bi tamit ñu nar leen bañ a toppeet ci dara teg ci duñu indi benn coppite ci l'armée bi ëllëgu élection yi. bu ñenn ñi xalaatee ni proposition yi dina tax rek réew Burkina Faso daal di ànd ak dal am ñeneen ñu ne situation bi day firndeel ni rek dañuy gën a dëggal coup d'état bi. ñi gën a fës ci ñi ñi ñaawlu li di xew bokk na ci kuréel bi ñu duppee bale citoyen ci seeni kàddu xamal nañ ne CEDEAO warul woon nangu coup d'état bii ndax mën na jur ay jafe-jafe ci yeneenu réew mi ku mu neex rek nga jóg def ni général Diendéré def te dara du la ci fekk proposition yu CEDEAO def tax na ba léegi tiitaange yaa ngi ci biir réew mi ndax saay na seeni constitution te askan wi rawatina société civile bi fas euh, na yéene wéyal xeex bi ba ñu situer responsabilité yi ku ñu war a daan rek ñu daan ko quelque quelque réaction monsieur Diouf laataa ñoo tàggatoo gis nga ko euh, ku ci ni nga gisee wàll wi. dëgg la euh, mais gis nga waa Balai citoyen ak yeneen mouvement syndicaux yi dañ xamal carrément ni d'accord ñu sax xëy na élection yi ñu mun ci ubbi waa CDP maanaam ñi àndoon ak Blaise Compaoré man d'accord naa élection ndegam askan wi fal. Mhm. mooy tànn nañ bàyyi ñëpp dem ci compétition bi. Mhm. mais dama itam bëgg a xamal ne soxna si bu nit defee loo xamante ne war koo def ci gouvernement ci réew ci état yoon daf ko war a topp. Mhm. parce que gis nga boo deful lool bu ëllëgee itam samba booy bu nekk nga baal ma mën na jóg rek ni mën naa def li ni mel bu ëllëgee ma ñëw négocier xamal leen ne gënal ma ci réew bi ngeen baal ma amnistie ma ma dem defi leneen loolu nag dafay tardé suñu réew yi. moo tax ñun dañoo ànd ak waa Balai citoyen ni dañoo d'accord bu baax ne jënjëre ndegam am na dossier yu bari yoo xamante ni dañ ko cee toppoon te yooyu sax leeragul même buñ ko am amnistie woon ci bii. il faut ñu toppoo ko affaire euh, affaire Thomas Sankara. ak yeneen affaire yoo xamante ni turam a ngi ci ci lu baree baree bare bare Konte CEDEAO ndaje suba ñun suñu appel mooy que ni na jàpp ne dëgg la am nañu ponk ba mën a delloo kafandoo ci fauteuil bi wante nag ñi ko fa dindi woon. ci condition yi ñu ko fa dindee. mbir mi war a noonu ci ñoom. voilà gërëm la sant la kon euh, Mignane Diouf euh, doon indi ay leeral ci situation bi ci Burkina Faso wax nañ ko sànq point de presse bu ñu amal pour xam leen ni d'accord nañ ci lu bari euh, sauf que nga xamante ni ñoom ñoo def jëf jooju ñu daal leen di bañ a toppee ci dara gërëm la sa teewaay ci xibaaru digg bëccëg. maa ngi leen di sant bu baax di la ñaanal nga yenn jàmm. jërëjëf soxna.